ñaar kan mooy yàlla salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub wi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission yi dañuy benn bennal nettali yonent yàlla yu jëkk ya tey gëstu ci mbind mu sell mi ñu bindoon ngir nu mën a xam bu baax lan mooy yoon wu jub bi yàlla tëral ngir nit jub ci kanamam ci sunu émission bu jëkk jàngoon nanu ci lu jëm ci mbindi yonent yi gisoon nanu ne amoon na yonent yu bare yu bind ci mbind mu sell mi wante kenn rekk moo ko sos te kooku moo di yàlla ci njàng mi weesu bàyyee woon nanu leen benn xalaat bu am maanaa lool xalaat boobu moo doon lii yàlla wax na yàlla wax na ak nit jaarale ko ca yonent ya te gisoon nanu tamit ne ba tey yàlla dafa bëgg wax ak nun jaarale ko ci mbindi yonent yi yàlla du soppi ko mukk te kàddoom waxi noppi ci jamono ju nekk yàlla dafa ca daan aar kàddoom kenn mënula ràndal waxi yàlla àddina si day wéy waaye kàddug borom bi day sax ba faw moom la mbind mi wax kon nag tey jii dinanu dugg ci téere bi jëkk ci mbind mu sell ñu koy woowe tawreet téere bu jëkk bi yàlla soloon ci xelum yonent bu tudd musa yàlla waxoon na musa limu mu wara bind te mu bind ko cib téere boobaak léegi am na ñetti junniy at ak juróomi nag juróomi téere la wala juróomi xaaj xaaj bu jëkk bi lañuy woowe njaalbeen ga am na juróom fukki saar ci téere njalben ga téere bu jëkk bi dafa tudd njalben ga ndaxte moonuy nettali li xewoon ca njalben ga faaw xam bu baax téere bi jëkk ci tawret ndaxte mooy fondement bi yàlla teg ngir nu mën na dëgg lépp lu mu wax ci yeneen téere yonent yi ci topp ci téere bi dinañu ci xóotal sunu xam-xam ci ay dëgg yu bare te am solo dinanu gëstu ci lu jëm ci yàlla ak nu mu mel dina nu jàng ci mbiru malaaka ya ak seytaane asamaan ak suuf bàyyima yi ak nit ñi dinanu gis ni bàkkaar duggee ci àddina ba indi naqar te yàq lu bare waaye dinanu gëstu it ba xam yoonu mucc wi borom bi yàlla tëral ngir bàkkaarkat mën a dellusi ci yàlla ba am diggante bu neex ak moom dinanu jàng ci mbiru diine yu jëkk ya dul woon dëgg ci nettali yu jëkk yi dinanu gis nit ñu jëkk ña te it dinanu seet bàkkaar bu jëkk ba boomkat bu jëkk ba xeet yu jëkk ya yonent yu jëkk ya nu gëstu ci nettali aadamaak awa kayin nag abel yonent yàlla nooyin ak mënum ndox ma yonent yàlla ibrahima ak nettalib tabaski ismaila ak isaaxa esawu ak yanqooba yusufa ak magam yu soxor ya téere bi jëkk ci tawreet moo ëmb loolu lépp ak yeneen ak yeneen kon nag mbokk yi léegi nu ngi leen di ñaan ngeen déglu bu baax ndax te waxtu wi nu wara tàmbali sunu njàng ci mbind mu sell mi agsi na ci téere bi jëkk ci tawreet saar benn aaye benn lii lanu ciy jàng ca njalben ga yàlla sàkk na asamaan ak suuf fii lanu war a tàmbale sunu njàng ci waxi yonent yi ndaxte fii la yàlla ci boppam tàmbale ci téereem ca njalben ga yàlla sàkk na asamaan ak suuf aaya bi am na ci lu nu war a xalaat lan moo amoon laata yàlla di sàkk asamaan ak suuf laata àddina si di nekk mbind mi dafa nuy won ne dara amul woon lu dul yàlla moo tax mu ne ca njaal ga yàlla lépp lu nu mën a gis ak lépp lu nu mën a laal ca njalbeen benn ga la tàmbalee am ca njalbeen ga amul woon asamaan mbaa suuf géej mbaa garab ca njalbeen ga laata yàlla di sàkk asamaan ak suuf amul woon jant bi mbaa weer wi ak biddéew yi nekk ci jaww ji tey ca njalbeen ga amul woon nit mbaa malaaka amoon na jamono joo xam ne dara nekkul woon dara lu dul yàlla kon loolu moo tax nuy jàng ci aaye bi jëkk ci téere bi jëkk ci mbind mu sell mi ca njalbeen ga yàlla sàkk na asamaan ak suuf mbind mi waxul ca njalbeen ga yàlla ak malaaka yi wala ca njalbeen ga yàlla ak nit ñi déedéet mbind mu sell mi dafa ne ca njalbeen ga yàlla ca njalbeen ga ba dara amul woon ba àddina ak malaaka ya ak nit ña sosoogul kenn rekk a doon dund kooku moo di yàlla kon nag li nu yàlla bëgg xamal jaarale ko ci aaya bi jëkk ci mbind mu sell mooy lii yàlla amul njalbeen yàlla sosuwul ca njalbeen ga yàlla mooy boroom alaxira lépp lu nu xam te gis ko fii ci àddina si am na njalben wante yàlla amul njalben amul cosaan amul moroom moom dong nga nekkoon ca njalbeen ga kenn juru ko kenn sàkku ko te sàkkul boppam moo tax nuy jàng ci mbind mu sell mi ca njalben ga yàlla moom kenn moo amul njalbeen mooy ki nekk di dund ba faw mooy kiy sax ba abadan aji sax ji la tudd ni mu mel tey la meloon démb ni mu mel dëmb ak tey lay mel ba faw yàlla du soppeeku mukk am na leneen lu nu mën a xam jaare la ko ci aaya bi wax ne ca njalbeen ga yàlla sàkk na asamaan ak suuf mooy lii yàlla màgg na yàlla mi sàkk lépp moo gën a màgg lépp ak ñépp yàlla mooy aji bind ji sàkk lépp ci dëgg-dëgg nun ñi xam yàlla mën nanu wax ak sunu xol bépp allahu akbar yàlla màgg na amul moroom moo ëpp kàttan lépp lu nekk ci àddina si géej ngelaw jant bi ak biddéew yi moo ëpp xel jinne yi ak nit ñi moo yelloo ndam ba faw ni kiy tabax kër ëppe maanaa kër ga tabax noonu la yàlla sute lépp ndaxte yàlla mooy ki sos lépp yàlla màgg na ci kàttanu boppam lay dunde wéeruwul ci dara sukkandikuwul ci kenn yàlla moo gën a màgg lépp soxlawul kenn soxlawul dara mooy aji màgg ji nu nit ñi am nanu ay soxla yu bare bés bu nekk danu wara noyyi di nelaw di naan tey lekk sunuy soxla bare na lool danuy soxla jant bi ak taw bi ñam ak ndox yére ak kër baay ak yaay xarit ak xaalis ak ñoom seen sunuy soxla bari nañu lool waaye yàlla aji sax ji sàkk lépp soxlawul dara du xiif du mar du sonn muk amul yaram ni nit ñi amul àpp amul muj mooy yàlla aji sax ji mooy aji kàttan ji léegi nag laaj bu am maanaa ngi ni su fekkee ne yàlla melul ni nit ñi te amul yaram ni nun kon naka la yàlla mel mbind mu sell mi tontu na ci tontu bu leer nee yàlla xel la kon ñi koy jaamu war nañu ko jaamu ci xel ak ci dëgg naka la yàlla mel yàlla xel la nit mooy yaram ak xel wante yàlla xel kese la ci àddina si am na ñuy wax ne man mësuma gis yàlla kon yàlla amul nit ñi weddi ne yàlla am na dañu leen bëgg laaj ndax mës ngeen a gis benn atom walla oxygène bi ngeen di nooyee ndax mës ngeen a gis ngelaw li ngelaw kenn mënu koo gis teewul xam ngeen ne ngelaw am na ndaxte mën nga gis li muy jur maanaam nga gis garab yi ngelaw li yëngal wante ngelaw moom ci boppam kenn mënu ko gis noonu la mel ak yàlla mënunu gis yàlla ndaxte yàlla xel la te nit ku ànd ak jëmmam mënula gis ay xel wante xam nanu ne yàlla am na ndaxte gis nanu li yàlla sàkk te mën nanu xam nu yàlla mel sunu gëstoo ci kàddoom kon nag yàlla xel la te xelu yàlla amul àpp mu ngi fépp yàlla moo tiim lépp ak ñépp feesal na lépp gis na lépp guddi ak bëccëg ñoo yem fa yàlla soo nëbboo ci sa néeg sax yàlla nga fa te gis na la yàlla xam na lépp xam na say xalaat ak say mébéti xol yàlla màgg na kon naka la yàlla mel xëy na li nu jàng tey mën nanu ko tënke nii yàlla melul ni kenn yàlla moo di yàlla te amul moroom ci sunu njàng yi ñëw fii ci émission yoonu njub ñu yokk sunu xam-xam ci lu jëm ci melokaanu yàlla ci mbind mu sel mi yàlla am na lu ëpp ñaar téeméeri tur moom mooy yàlla aji sax ji aji kawe ji aji kàttan ci aji bind ji aji dundal ji aji leer aji jub ji aji selji ji aji yërmande aji mbëggeel ji mooy yàlla aji dund ju dëggu ji ci dëgg-dëgg yàlla mi sàkk asamaan ak suuf ca njaalbeen ga aji màgg la moo tax mbind mi ne xelum yàlla ni mu xoote ak xam-xamam ni mu baree ba raw xelum nit ndaxte ci moom la lépp sosoo ci moom la lépp di jaar ci moom la lépp di dellu moom kenn mooy boroom bu tedd bi di buuru buur yi ak kilifa kilifa yi moom kenn jagoo dund gu sax dëkk ci biir leer gu kenn mënta jege moom mi nit mësula gis te nit mënu koo gis moom kenn yelloo teraanga ak màggaay ba faw amin ci mbind mi yonent yàlla musa yéene na màggug yàlla ci wenn woy wu neex naan say jëf rëy nañu te yéeme yow borom bi yàlla aji kàttan ji say yoon jub nañu te dëggu yow buur bi fi sax abadan ku la ragalul borom bi ku dul màggal saw tur kenn ndaxte yow rekk yaa sell yàlla màgg na te aaya bi jëkk ci mbind mu sell mi yëgle na ko bi mu nee ca njalben ga yàlla kon nag mbokk yi nanu denc ci sunu xel lii yàlla dong nga nekkoon ca njalben ga te kon yàlla dong nga nu mën a xamal dëgg gi ci li xewoon ca njalben ga te yàlla dong nga nu mën a xamal dëgg gi ci li nar a xew ca laaxira te it yàlla dong nu mën a xamal dëgg gi ci lu jëm ci boppam waaw dégg na nu ñuy wax kenn mënula xam yàlla mbaa luy xewi alaxira waaye ñi xam te gëm mbind yonent yi xam nañu ne mën nañu xam yàlla te it mën nañu xam fan lanu war a nekk diirub laaxira ndaxte kàddug yàlla nee na maa ngi leen di bind yëf yi ngir ngeen xam ne am ngeen dund gu dul jeex lu bët gisul nopp dégg ko te xel xalaatu ko loolu la yàlla dencal ñi ko bëgg fekk nag nun la ko yàlla woon jaare la ko ci xelam xelum yàlla mooy leeral lépp ba ci xalaati yàlla yi gën a xóot yow miy déglu tey ndax xam nga yàlla ci boppam walla dafa nekk ci yow aji bind ju sore ji kenn mënta xam li yàlla bëgg mooy nga xam ko te dëkk ak moom ba faaw mbindi yonent yi dafa nuy faram fàcceel ni nu mën a amee diggante bu neex te jege ak yàlla wante faaw nu ubbi sunuy nopp ak sunuy xel ak sunuy xol ci li nu yàlla bëgg a wax jaare la ko ci kàddoom looloo tax yàlla ne déglu leen ubbi leen seeni nopp te ñëw ci man déglu leen te seen xol dina dund kon nag fii lañu yem tey nu ngi leen di gërëm ci déglu bi bu soobee yàlla ci émission bi di ñëw dinañu dugg ci sunu ñetteelu njàng mi tudd seytaane ak malaaka ya fu ñu jóge su fekkee ne am na lu ngeen bëgg laaj ci li nu jàng tey na ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen fàttaliku lu yàlla aji sax ji wax ci kàddoom bi mu naan yàlla xel la kon ñi koy jaamu war nañu ko jaamu ci xel ak ci dëgg